ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى الذي أوتي جوامع الكلم والكرائم الحكم والرسول الصادق اللهم صل وسلم وبارك عليه ما اتسع بالعين بالنذر أو سمع الأذن بالخبر صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل سرا وعلانية فضل العلم ووجوبه فإن العلم الشرعي والأحكام هو عدم الفرائض الإسلام ومن ثم أمر به وخص عليه تعليما وتعلما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب معنى الآية يا عباد الله أي من يطيع الله ورسوله في أمرهما ونهيهما أي في ساعات الليل ترى ساجدا في صلاته أو قائما يتلو آيات الله في صلاته وفي نفس وقت وهو يحذر عذاب الآخرة ويسأل الله تعالى أن يقيه منه ويرجو رحمة ربه وهي الجنة أن يجعل الله من أهلها آمين مكجد الله بسد يالا دول سد يالا بواواد جلسي النبي صلى الله عليه وسلم أكواكر مستحاب آمين أكيفو كم يامي تبسنا بإلى يوم القيامة مكي جلدي نيواتا لليامي موين جنيلي حم حم أك ورغا ورغا ورغا ورغا war na fu bépp julit mu sàkku xam-xam boo xam ne na mun a xam naka la moo jaamu boromam ndig yàlla subhanahu wa taala ba mu wax yonent bi alayhi salatu wasalaam lan lam dikaawa ci si moom mooy iqra iqra bismi rabbika alladi xalaq mooy jàngal yonent saa sallam mu doon a jàng mu doon a riit xamutoon lan mooy jàngal sax jibril sonal ko si lool lool lool ba gannaaw si nga xam ne ñëpp xam nañ taarix bi mu ne nag iqra bismi rabbika alladi xalaq waaw yàlla ne ko jàngal sa turi borom bi nga xam ne moo la bindal bon nag loolu waajib la maanaam dafa war si bépp julit mu jàng kan mooy boromam mu xam ko ndax jaamoo mun a baax nit ki soo xamul sa borom doo xam naka ko mun a jaamoo bon bi ci kaw wàcc si alquran mooy yàlla subhana taala bi ne yéen sa salam iqra bismi rabbika alladi xalaq bon nag kooku war nañ ko mu xam mu nekk lu war pour ñun ñëpp ku nekk si ñun mun a saako xam-xam boobu aman huwa qaanitun ana allay mu ne ak ki nga xam ne ndeysaan mu ngi jóg guddi saajidan di sujuud di jaamu yàlla subhaanahu wa taala wa qaaiman di taxaw yaxdar axira lana ko waral mooy mu ngi ragal allahira bi ñoo dem allahira bi nga xam ne lu fa nekk mooy imma fil janna wa imma fil ñaari béréb bépp moo nekk allahira muy arjana wala fi nga xam ne mooy safara yàlla si yàlla muccal kon nag kooku nga xam mu ngi ragal yalla subhanahu wa taala di julli julli waxtu ci si julli suba ak ngoon su ñe suba ak ngoon moy waxtu julli nga xamene farata lañ ko ci bëccëg bi ak yi nga xam farata lañ ko ci gurisi moy timis beggee mu ne ma yarju rahmata rabbi way nak mu ngi yaakar yërmande suma bokk suñu borom subhanahu wa taala lolu wone tamit du ne jaamu rek moo ñoom dëggal arjana waaye lan la ñoo yaakaar yërmande yàlla subhanahu wa taala yàlla si yërmandeem yàlla si baaxaayam yàlla subhanahu wa taala si la ñu dugalee arjana waaye arjana bi dafa war a am sabab sabab bi mooy lan mooy ñu war a jaamu yàlla subhanahu wa taala comme niñ ko santaane yàlla subhanahu wa taala nag indi ñu laajte boo xam ne laajte bi dafay tontu boppam yàlla ne hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun ndax ñi xam ak ñi xamul mun nañoo am déedéet loolu moom foo mën a dem si àdduna bi foo ko laajte rek ñi xam ndax mun nañoo toolu ak ñi nga xam ne ñoo xamul déedéet loolu moom jawaab la boo xam ne la boo xam ne ku nekk mun na koo ansar boo ko am ba tey yàlla subhanahu mu laajte laajte boobu te yàlla moo ñu gën a xam moo ñu saaka moo xam kii góorgóorlu pour xam yàlla ak ki nga xam mu ta góorgóorlu pour xam boromam ndig déedéet nga gis fekk di julli di nga laajte ba façon julli la moo julli nit moom mu ngi ko jullee mu ko neexee góorgóorlu pour xam naka la war a jullee lan moo war a baaxal julleem déedéet travail bi loolu waaye moom daal na ñëw ne allahu akbar seen sigi dem na fi yoonam ah julli naa bi pare waaye góorgóorlu pour xam julleem bi ndax mu ngi koy def si lu baax waaye dafa def ko si naka naka la yàlla subhanahu wa taala santaane te mu ne nag mu ne ndax ñoom nañ innama yatazakkaru ulul albaab loo tax alquran waxtu bu nekk suy wax rek mu ngi wax ak borom xel yi innama yatazakkaru ulul albaab mu ne ñenn ay fàttaliku loolu ñenn ay xam ne ne xam-xam lu war la xam sa borom pour jaamu ko lu war la si nit ki mu ne borom xel yi dafa koy xam parce que nit ki ngay ubal ngay def dara yàlla subhanahu wa taala mu ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura loolu ubal na nit ki di foog ne mu ngay def lu baax di di góorgóorlu du def du def du def ndekete moo def dara baaxul ci kër yomal qiyaama mu ñëw nekkal ko neen loolu bëri na si nga xam ne mu ngay xew si doomi aadama yi ñi nga xam ne seen jaamu yàlla balaa ñoo kontaan ñu boole si shirk ñu boole si bokkaale yàlla subhanahu wa taala jël doomi aadama teg ko maqaama yàlla jël doomi aadama def ko yàlla def doomi aadama yaakaar àdduna àllaaxira te bu ngeen jaamu yàlla te bu ngeen julli bu ngeen oor waaye nag bokka boole na si jëfam yooyu shirk bokkaale boo xam ne kër yowma qiyaama lam doon jaamu yëpp yoo nekkal ko neen te yàlla ne innama yatazakkaru ulul albaab waaye lii kenn ko mun a fàttaliku kenn ko mun a xelaat mooy ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala joone la xelu ñaw yi maanaam aaya ya ibadallah yuti llah wa rasula fi awamirihi mu ne nit ki war naa toppa yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen digal yi lu ñu yàlla santaane lu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane luñ mën a toppal lu tax yàlla subhanahu wa taala bu mu waree atiyu llaha wa atiyu rasul toppale yàlla toppal yonente la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon nag léegi nga gis ni ku taw sax ne ma ne taari yonente sallallahu alayhi wa sallam sunna sax amut alquran rek a am boobu yaa ngi juum yàlla boo ne atiyu llaha wa atiyu rasul xanaa si lan la ñoo toppee yonente sallallahu alayhi wa sallam si li nga xam ne moom la ñu indi muy ahadis am yi nga xam ne dafa wér muy sunna bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla wax na ne laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alayhi wa sallam du waxi neen doo waxi mboosoo du waxi waxi lu mu wax rek wax yu la maanaam yàlla moo ko ko wax loo bon nag kooku suñu yàlla wax ne nañ toppa yàlla toppa ko bon nag sunna am lan moo amul mooy bidaa li seen jamono yonent salaam def ñu ko leeral ne kullu bidaatin dalaala sa salaam wax na ko mu ne kullu bidaa dalaala bon nag su ne kullu nag bàyyiwu dara amul lu mun a rafet nag si gannaaw yonent bi salaa sallam ba nit ki mun a mun nit ki mun koo boole si diine amul bi saa salaam dafa ne kullu kullu nag yasmul jami arab si ne kullu rek bàyyiwul dara yëpp la si boole mbokk mbokk jullit yi mu ne kooku nag toppa ndigal yéen bi saa salaam ak yàlla waaye tamit bàyyi tere yàlla yi ak bàyyi tere yonent bi alayhi salaatu salaam lii mooy jaamu yàlla lii mooy toppa yàlla ak yonent bi saa salaam toppan seen digal ñoom ñaar waaye bàyyi seen tere ñoom ñaar ku def si loolu rek macha allah yaa si yoonu yàlla subhanahu wa taala yaa si yoonu yonent bi saa salaam mu ne waaye police bi di julli waxtu juróomi yi ngaa julli si bëccëg ay yi ngaa julli si si suba si wala guddi guddi si fii salaat aw qaaiman yatlu ayatillah waaye amut loolu yaa ngi jàng alquran bi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci Yonent bi salaa sallam alquran di suñ eh, dalil di suñ li nga xam ne mooy suñ constitution bi nga xam ne suñ ko toppee kenn suñu lu réer xam ne suñ ko taxawee kenn suñu lu nekk si eh, lu bon ndig alquran laa yaati baatil min bayni yadihi alquran dafa nekk loo xam ne dafa leer du indi lu bon ñëpp lu baax la pour doomu aadama mu ne kooku nag nekk di ko jàngal fi salaati wa fi nafsi waqt huwa yahzar azab al axira waaye bi nga jàmm yàlla lii yëpp yëpp yëpp am na looy ragal am na loo bàyyi sa xel moo di àllaaxira mu ngi yow àllaaxira moom nga xam ne ku nekk rek sa boppa yawma yafirru maru min axiihi wa ummi wa abiihi wa saahibati wa baniihi li kulli imri minhum yawma in sha'nun yugniihi bés la boo xam ne ku nekk ay daw sa morom doom gis baay daw daw baay gis doom daw yaay gis doom daw subhanallah gis sa sista sista gis broda ku nekk di daw sa morom ndik lan ku nekkaa ngi ragal borom sa sa mbokk ne la dimbale ma doole ma dama manqué waaye wala jàppale ma nit ku nekk nag sama ko doy na la li kulli imri'in yàlla soo yàlla soo dara bu ko waxee nag foofu nag daf laa wane amatu kenn ku la mun a dara mu ne ku nekk rek sa bopp la man nag boobu war naa mën a tafe suba mbokk jullit yi nit ki suy jaamu yàlla war ngaa jaamu yàlla di yaakaar ne allahira nag foofu yàlla li nga xam ne mooy joxe yërmaande yàlla yërëm la foofu allahira waaye nag na nga tegu si yoon fii boo tegoo si yoon fii yàlla subhanahu wa taala dina la ko yombal foofu allahira te mu ne nag wa yarju way way xasar azab al axira mu ngeen ragal li nga xam ne mooy mbugal alaxira te mbugal alaxira nag dafa métti wa yasalla taala an yuqiyahu minhu wa yarju rahmatahu waaye mu ngeen yaan yàlla yàlla mu cal ko si mbugali alaxira waaye mu ngeen yaan yàlla lan yërmande li nga xam ne ñun ñëpp si la ñoo duggee àjjana amul kenn ku dugg àjjana fekk dugaloo si yërmande yàlla subhanahu wa taala mu te nag ngay yaakaar yërmande waxtu bu nekk waaw loolu tax su nit ki bokk na si ne soo ne yaa rahman irham nii ay yàlla yow borom yërmande yërëm ma yaa rahmaanu irhamni yow yàlla borom yërmaane yërëm ma su ne yàlla borom yërmaane rek texte ne yërëm ma waaw texte ne yërëm ma parce que loolu mooy ne yaa ngi oo yàlla si turam bu màgg boobu waaye kooku mi ko ooyee lan nga ko wax nga ne ko yàlla yërëm ma nga ne ko yaa rahmaanu irhamni parce que mu ne nag yarju rahmatahu wa hiya aljanna mooy arjana ndax su ñu yërmaane yàlla àllaaxira rek lan lay si jublu mooy arjana ndax fa la yërmaane bi em arjana foo la yëpp nekk fa la xéwal yëpp nekk ay yaj'ala Allahu min ahliha yàlla def na si ñi nga xamante ne ñooy dugg àjjana yàlla ñu yàlla boole si ñooy yëpp bokk أهذا خير أم الذلك الكافر الذي قيل له تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ndax loolu moo gën wala ki nga xam ne yéefar la dafa weddi yàlla ñu ne ko yow ah kay àdduna bi bii enjoy yàlla enjoy yàlla àdduna maanaam noosa si àdduna waaye noos bu gàttal tamata qalil ndax àdduna yàggul ku fi am alal ak ku fi am fan yu gudda yu yàgga yàgga yàgga yàgga da ngay dem mu ne ko yow bu nga xam ne da nga yàlla mu ne ko dundal enjoy lu ndaw ndaw ndaw ndaw waaye sa mujjante fa la moo nekk safara loolu tax mu ne guddi lu mu yàgg yàgg yàgg fajar na jot waaye nit ki tamit noo gudda gudda gudda fan bés a pour mu ne ne yàlla dinañ wax ak yéefar yi ne leen enjoy leen àdduna lu leen ne waaw waaye nag seen masir seen mujjante mooy fan mooy safara ak képp ko xam ne yaa ngi toog si groupe boobu képp ku ma topp si groupe yéefar yooyu rek loolu la la yàlla subhanahu wa taala wax fii bu ko am na ñoo xam ne ñu ngi def seen bopp ne jullit lañ waaye ñoom àdduna rek lañ gis xelaafuñu àllaaxira ñoom àdduna rek la si jox ba lu gàtta la lu yoo xam ne yaagu boo gisoo si kanam am nañu la raw am nañu la ëppoon alal foofu anañu tey amul si kaw suuf waaye anañu tey ñëpp dem nañ bàyyi ko fi yow tamit bés a ngay ñëw di ko fi bàyyi waaye mu seetal sa mujjanteel fan la mooy doon sa mujjanteel mooy fan mbokk jullit yi loolu moo gën a am solo mbokk jullit yi ndik dunda bi ñoo dunda bi yëpp mbokk jullit yi ku nekk si ñun dafa war a di xelaat boppam man di allah ya fan laay mujjee ndik ñaari kii rek am foofu kenn mu ne man du faruma fen foofu amul ne man bokkuma fen foofu amul ne man du ma def fen déedéet ñaari bàyyi foos benn la si bi nga xam ne nag yow boo bëgg dinaa bëgg a góorgóorlu fii àdduna nga ne naa si def suma xaral suma tànki tubéy pour liggéeyal pour boobu nga xam ne man bëgg naa bëgg allah muy ban muy aljanna ayo axatul kiraam Nanti Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Lu dah lu def Al bu baax ci alquran. Yalla ne ñoo war di Allah yalla yalla increase. Yalla yokka suñ ham. Nik ham ham. xam moy tax nga jaamu Nik nik muda mu da jaamu yalla ci lelem. yala. mu da jaamu yalla ci na ñaka xam. Da ngay sa borom ko Da zidni wa qul rabbi zidni ilma. Eh, ya Allah yokka ma ham ham. Ku mo ham xam mu gën la subhanahu wa taala يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يقول لك يالا اما يعمل يالا اما يؤكد السنبير من يرفع الله الذين امنوا يالا ناكد ني امنين قوم يالا نك سو قوم يالا نك وغكم مرحم جامكو منكم سيين يالا من والذين اوتوا العلم درجات اكني هم خامل جوخ نالين هم خام نالين جو اي درجات واي بان هم خام muy هم xam buy jëriñee muy xam-xam boo xam ne nit ñi dañ see jëriñoo rawatina nag rawatina xam-xam islam xam-xam boo xam ne dafay ne qaala allahu qaala rasul looy wax rek yaa ngi xilaat man li may wax nii dama koy waxte yàlla tax dama koy waxte yonent bi sallam moo ko jàngale noonu loolu yàlla subhana taala yonent sa wax ñu loo xam ne lu garaaw la am na kuy wax waaye li ma wax pour nit ñi la am na kuy wax waaye pour ñu ne di nga am xam-xam am na kuy wax pour ne di nga mën a wax waaye fekk lu moo wax moo ko te yàlla tax léegi sax mu ñëmbaa si loo xam ne sax du dëgg pour bëgg nit ñi gën a foral mbiram rek loolu yonent sa mu ne من كذب على الله متعمدا فليتبوع مقعده من النار كيف كامنا فين ان يالا واخ يالا لو حمل دغا تتي كو بوغا دراجه واي بوغا مقام من ان بلا نجا بري سو بلاصه سفر واي يوسف سلام من سوما واخ اوتنا واخ ينيني تامت كيف كو حمل مو مسوتال مو ما يعني لا يبي مو واخ لي تي فيك مو بوكو من يالا ني بري نجا بري سو بلاصه سفر لو لو لو بوري لا بوكو جيري بون كو جامبو كحمد يالا ده من قال لك بيوصي يالا سبحانه وتعالى كحمد زين رسول الله كجانو ده من قال وصي رسول الله ديدت بقول لك ورقا من ساكو حمام ومن وصي يالا من وصي رسول الله بالا مقلبي إلى حق الله ربك جلدي حديث عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين حديث معاوية ينبي صلى الله عليه وسلم منه كيف كو يالا بقول يو كيف كو يالا بقول لباه كيف كو يالا بقول جامع دفلا جو حمام الدين دين إن دين عند الله إسلام ومن يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبله وفي الآخرة من الخاسرين هل الدين يا لنا دين بمن وسكا وسوف من إسلام كيف بقى من جلو إسلام موسى دين من كريم يوم القيامة دعنا بقى سيجي بتاعي هولان نيجي ديسمبر لقي يعني دعنا أي جنة جنة جلت نيجي نيجي دم كريسماسي أنا تين دين دين ديدي نيون أمي لين نيجي فكريسماس من أم دلال دفع دين أبو آه، آه، آه، حمل بسم دينه يا دفع دفع تانا دين أبو حمل موجس دينه يب يا لنا إن دين عند الله الإسلام بنا بنا ورنا تبي نكل في حال بري نماغير ديزمبر كامل ولا ماغير أفريقيا ديزمبر لا ده ما ده تبص كيف نده ملو كور كيف نده ملو ويا ديزمبر غير نادم loolu dafa war a si bàyyi xel bokk jullit yi lii yëpp ñàkk xam sa la ñàkk a jàng sa diine pour xam ko moo ko waral ngay fay ay si loo xam ne dafa xaraam loo xam ne lan la ñoo wax ne Isa ibnullah ne Isa doomu yàlla la ñi màggal bés euh, weer bii di li ñoo wax mooy ne Isa doomu yàlla la te yàlla wax ne su qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun ñu yëpp jàng nañ xul wallaahu amul kenn ku nekk si suñu kala ma ko xul wallaahu ahad waaye dafa nga seet xul wallaahu ahad lan la miin loolu mooy xam-xam bi nga dem jànga seet lan la yàlla wax si xul wallaahu ba mu jeex tàkk ndax loolu su fekkee ne yow julli bi xam nga ko nga di nga dogati sa ticket yaa ngi dem Christmas yi moo ko jullit yi loolu mooy li nga xam ne mooy yàq jëf doomu aadama bokkaale boobu nga xam ne yaa ngi ko dem di ko bokkaa yi nga xam ne ne ñu ngi weddi yàlla lu yàlla wax nga dem bokkaa ñoom si màggal boobu yow yaa ñu ma yonent bi salaam mu ne wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kuy jéem a nuróo nuróo ak xees rek yaa ñoom a em mbokk jullit bi nañ leen xam suñu diine ndax ñu mun a tegu si yoonu siraatul mustaqim mbokk jullit bi lii yëpp ay def la maanaam ay weakness la ay weakness yoo xam ne jullit bi def ko daal foog ne moom balaa ba mun a enjoy rek nen naa dem Christmas yaay axi maakaa ngi ni mun ngaa dem omra wallahi benn julli yàlla bay la nga julli five times daily maaka lu ko jëlee fajar ba gee loolu yàlla subhaana taala mu lay reward two hundred and seventy seven years yoo xam ne yaa ngi ko julli yàlla two hundred and seventy seven years ak six months ak six days yoo xam ne yaa ngi ko julli yaa ngi ko julli te yàlla nangu la ko benn julli rek nga am ko maaka five prayer times daily julli ah, man xaaral ma dem eh, Christmas yi te am na fu ñu yàlla wane nañ fa dem Makka Madina benn julli ba fa julli one thousand reward Makka hundred thousand benn julli bu nekk hundred thousand bokk na naafila yi yooyu yëpp mbokk jullit yi jullit bi am na ko pour yokk imaanam yokk jaamu yàllaam yokk waaye yokk tiyaaboom ndik amul fenn foo mun a jullee loo bi foo mun a jullee five times a day nga am two hundred and seven years looy jaamu yàlla ak nine months ak six days amul foo ko mun a am mbokk jullit yi demal Christmas loo ko dem loolu da nga war a day sa holiday bi ba time bi si time bi nga gis ne sa ticket yëpp a ngi seer waaye taxut di nga dem am na time boo xam ne ticket yaa ngi yomba waaye gën a bëgguloo dem time boobu because am na looy demal mbokk jooyu yoon sa mu ne innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imrin bi maa nawaa mu ne jëf yëpp yëpp yëpp yëpp su gën a am solo mooy éene bi dese na ku nekk nag la nga éene fa man kaana hijratuhu ila allahi wa rasuli fa hijratuhu ila allahi wa rasuli fa man kaana hijratuhu ila imraatin yusibuha aw duniyaa si ba fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi xoolal ni bisa sallam time bi di kaadaay ak yéen bisa sallam moo leen a kaadaay dawale seen diine moo leen taxawoon a génn Màkka dem Medina waaye am na ñu xam ne rek jigéen buñ bugga wala rawale seen alal moo leen taxoon a gàddaay yonent bi sallam ñu ñaar ñooñu ñi nga xam ne yàlla tax ñu gàddaay ak yonent bi ak ñi ñoo taxoon ñu gàddaay

ñi ci nit lañ war a añaane léegi la yow su sala mën na su a añaanee ñi tey lañ war a na la hal alal liggéey ko am ko yàlla warsagal na ko nga dem di ko dugal nga dem di ko dugal fi sabilillah gis ay projet yoo xam ne fii sabilillah nga ne xaaral ma dugal fa suma xaalis bi ji yàlla suma xaalis bi xaaral ma def sabilillah mu ne kooku si ko gisee dañ ko war a añaane wax añaan mooy lan añaan yu alal bi jéede dañoo ne kii de man su ma amoon li am naa def ni moom waaye ne bu ma amee xaalis naa dem àndaa moom dem christmas déedéet dama dem ma àndaa moom dem di jaamu yàlla di joxe fi sabilillah di dimbale fi sabilillah mu ne loolu sax nekku ne añaan lañ ko fi waaye añaan lañ ko fi waaye du añaan mu ne rajulun ataahu llahu ilman jox ko xam-xam waaye xam-xam boobu mu ko koy joxe fi sabilillah mu ngi jàngal nit ñi yàlla ne yonente bi ne ma ne ah man de suma yàlla mayoon xam-xam bi mu xam may kii ah naa def ni moom waaye tamit kii yàlla jox ko xikma xikma mooy wisdom koo xam ne wax bu jub fu mu fu fu fu fu mu ñëw wax si diggante bi jubale def lu baax di def moo xanaa lu nekk rek mu tëkk si yoon nga ne man tamit su amoon li waa ji am naa def ni moom wala su amoon li waa ji mu ngi naa def moom yàlla subhana mu ne gis kenn boobu nga am rek si jëf ju baax boobu yaa ñu yéen a am subhanallah xoolal islam ak moo fay yow am nga kéene bu baax pour rek bu def yu baax yii waaye nag mënuloo ko yàlla jëwul la ko waaye kéene boobu rek yàlla mu ne yaa ñi ko def yu baax yooyu yéen a am tiyaabu bon nag naka la ñu war a toppatoo toppandooree ñoo xam ne dañoo dem di di di dañoo dem dixième mbokki jullit yi nañ leen seetaan suñu boppam mbokki jullit yi saa bu nekk ñuy fàttali suñu bopp di leen fàttali ñun day war a xam suñu diine day war a jàng suñu diine ay al muraad bi xasadi al xibta wa huwa an yatamanna mislahu waaye li ñu li ñu jublu si kañaan bi mooy xibta mooy ngay am keene mooy nga am keene pour ne man su ma amoon li mu am rek naa ko def waaye nekkul dañ ko añaane pour alalam bi jee wala xam-xamam bi yaaxu wala pour du mun a waxati dëgga déedéet añaane ne ko loolu añaan bi ko añaane rek mooy ne yow soo amoon tamit di ko compite di nga xëccewante moom su joxee fii yow tamit nga joxee fale bu defee nii nga def na ne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 yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne balli'uuni walaw aaya na ngeen ma jottali bu dee aaya la nga ñëw jumaa déglu waxtaani jumaa bi nga ne ah li ma dégg si jumaa ji de koo xam ne ñëwtoon jumaa naa ko jottali keneen ne déggu ko woon ma ma gis si si groupe whatsapp bi ma siyaa ko yoo xam ne jotuñu ko woon yow sax mu ne ah kañ yaa ki ko doon wax am si tiyaabu si loolu rek yaa ko ku yéen am na ñu bëri tey dem nañ jumaa ba ñibbi oo leen nga ne laaj leen ne ma ne imaam bi lan la doon xutba lan la imaam bi si jumaa ji mënuñ laa wax dara ah dem naa jumaa de ñib si naa bàyyi génn yow sax mu ne balligoo anni na ngeen jot na ngeen ma jotali walaw bi aaya bu dee benn kalima la benn baat la rek hadis boo dégg rek nga mokkal si loo xam ne dafay jëriñu nga nga jotali leen ko waaw mu ne hadisu an bani israil wala haraj mu ne ay hikaayaat maanaam ay history ñoo dégg si bani israil mën nañ si waxtaanee waaye nag buñ si uppal ما جاء به القران نصدقه من نسي القران اندي نانكو غوم لو سي القران اندي نك نانسي مانو مونيو وسلام مون ولا خرج ومن كذب علي مو حديث مدو سهر من كيف كامل ما فينال فريد با الله بقدر من النار نغا بيرس بلاص سفر موي ني كيف كامل ني موي وسي الله صلى الله عليه وسلم لو حمل امو موي نغا بيرس بلاص سفر موي حديث امام بخاري حديث ابي هريره من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna xoolal kooka la si yoone dem arjana dugg arjana mooy kii jóg pour sàkku ci xam-xam nga ne ma ne xam naa diw daf dee jàngale xaaral ma dem si moom benn benn yoon si week bi wala benn yoon si weer bi kuy may sàkku xam léegi sax ko def ba online man ku may sàkku xam-xam online boobu mu ne yàlla na ubbil bunti dem arjana man salaka tariqan yaltamisu fii ilman sahala allahu bihi tariqan ila aljanna subhanallah am na asbaab yoo xam ne yow sa salaam wax nañu ay mbir yu bëri yoo xam ne nay tax benn kii mën a dugg àjjana mu ne man kafalal yatim ana wa kaafal yatim ka xaatayin fil janna ki nga xam ne mu ngay dimbalee jirim jirim mooy kii ñàkk waajuram muy xaleel nga koy dimbale ba kuroo o ba mag yow sa salaam mu ne yaa moom nii muy àjjana yooyu yëpp ay jëf yu baax yoo xam ne dafay dugal ni ki àjjana bopp jullit bi wa ka sayda yaa ibadallah allah subhanahu wa taala لما اتاه علما بانه قد اتاه خيرا كثيرا يا لموسر لنا كيفكم جو حم حم دينا دينا الحيوة بري بري بري وهم أم بن حيوة حيوة بطول المهم قال تعالى يؤتى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أودي خيرا كثيرا يا لمن موجه wisdom يا لمن موجه وحي جب ويا وحي جب ويا وحي القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هو يا لجهرك جحنا لن حيوة بري بري بكو جلدي قال ابن ابن قتيبة والجمهور حكمة على إصابة الحق والعمل به وهي علم النافع وعمل صالح من لن موي حكمة لن موي ويزدوم موي نيكي موي وحجبا وحججب وحجب دي كوتك سيون وحجب دي كوتك سيبلاسم من لن موي لغا ملي موي ويزدوم من واي لك موي جيف جبا تامين لنغاي وح نمكوي دف lu bax li ngay wax dég dafa war a fay si yow nga koy def waaye di digal lu baax di digal leen yee sangu leen te doo فنعمة أفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها أن أتاه كتابا وحكمة وعلمه ما لم يكن تعلم بكرة نسي هيولي يا سبحانه وتعالى جه النبي صلى الله عليه وسلم موي ويزدم جوه القرآن يا سبحانه وتعالى من وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر يندب عليه الصلاة والسلام يا منكو حملنا له حمتون النبي الأمي يوم صلى الله عليه وسلم موي كي النبي محمد منتبنا منتري النبي الأمي koo xam ne mënut a binda mënut a riid waaye yàlla lan la ko wax wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima sa salaam rek la ko lu xamutoon muy ngëneel bu mag a mag a mag boo xam na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow sa salaam ahadisam yëpp sahaaba yi ñoo ko doon binda yow sa salaam musta na binda mënut a binda te moo ëpp ñëpp xam-xam moo jàngal ñëpp sallallahu alayhi wa sallam kana ko jox loolu wa taala ngëneel bu mag la kon nag ñu tamit suñu sàkku xam-xam rek yàlla dinañ ko jox وأنزل الله عليك كتابا وحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أيها الأخوة الكرام وأن العلم حياة ونور هم هم نك موي دودا كي أم هم هم دفاي دودا تموي لير وجهل موت وإنورن ديلا وظلمة لدم لا وشرك بوكال لا سببه عدم الحياة والنور ما نملك ورد موي ياك أم هم هم أكن ياك أم لير والخير كله سببه النور وهي جامع هو اليب لنا كورا موي لير لير الاسلام والحياه فان النور يكشف عن حقائق بس لير دافاي فينال لي هابن موي رياليتي لي هابن موي ديغا ديغا دافكو فينال واعمال فكلها تسرب بالحياه وهي جف يب موغي موغي موغي موغي موغي ديكو سيلان سي ليغي مبوك جوليتي ايوا او من كان ميتا او احيا واحيناه أو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في ظلمات ليس بخارج منها وأنا هي الله سبحانه وتعالى اكزامبل example بي عمله مو قلنا لي اكزامبل يب أمن كان ميتا يعمل فدي ولا في جلا وجعلنا له نورا يمشي به كي جلا نك يانا كده فاللير مو يدرس اللير بوب مو القرآن السنة waaye ki nga xam ne dafa topp li nga xam ne mooy bidaa moo dafa nekk si réer ak li nga xam ne yàlla subhana taala sant ko mu ne nag mbokk jullit yi loolu tam bidaa di jaros ki nekk si bidaa dafa foog ne moom si diine du si génn mukk dafa foog ne moom si jaamu yàlla waaye du si génn mukk waaw loolu dafa di si lëndëm boobu rek ba dee fekk ko si yàlla yàlla mos a si loolu. اقول قولي هذا ان الله امركم بان تطيعوا عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعد عن الصحابه رضوان الله تعالى عنهم اجمعين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ونشر البصره بالجنه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء دين يا رب العالمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا وعلما نافعا ويقينا صادقا ونسالك اللهم دواء النجاه من كل بلايا ونسالك اللهم دوام العافيه ونسالك تمام العافيه ونسالك الشكر على والعافيه ونصرك الناس يا رب العالمين امين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين امين اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم ثبت اقدامهم اللهم انصرهم على اعدائهم يا رب العالمين اللهم يا رب انجي اهلنا في غزه يا رب العالمين اللهم يا منجي اللهم انجينا اهلنا في غزه يا رب العالمين اللهم انجي اهلنا في غزه يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والاخره رحمهما نسالك يا رب ان تنزل رحمتك على اخواننا في غزه يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم دمر اعداءهم يا رب العالمين اللهم دمر اعداءهم لهم يا رب العالمين اللهم مسكهم كل ممسك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسالك يا رب ان تدمر هؤلاء اليهود يا رب العالمين اللهم تدمرهم تدميرا يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اجعل المسلمين في كل مكان اللهم ثبت اقدامهم وانصر على اعدائهم يا رب العالمين العالمين اللهم يا ربنا من اراد بالمسلمين خيرا ومزيد خيرا يا الله ومن اراد بالمسلمين فشكل يا نفسي واجعل كيد الى كيدي اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من سرورهم اللهم إنا في نهورهم ونعوذ بك من سرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من سرورهم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله دعوناك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت بأجب وإذا دعيت بأتيت اللهم يا مفرج الهموم ويا منفذ القروب فرج هموم